wasalaamun ala ibaadihi allazina stafa mbokk yi ñi nga xam ne yéen ñuy baaxoo seetaan ci chaîne bu mag bi di chaîne jumaay Touba muy GMT TV lëkkaloog Lamp Fall TV am nañ mbégte mu yaa di leen nuyu ci suñ jotaay bu mag bi nga xam ne baaxoo nañ ko ànd ak yéen ci ñaar fukki fan yu jot ci weeru tubaab muy émission bi nga xam ne mi ngi tudd alman baul muridi di badlukaayu muridi di émission boo xam ne waa Muxaddamatul Xidma ak GMT TV rawat ak Lamp Fall TV dañ leen koy indil di ci waxtaane tomb yoo xam ne tomb yu jamono laaj la tomb yoo xam ne dañ ci jàngataat ay bind yoo xam ne dana jariñ mboolem nit ñëpp dañ ci daan ci ànd ak nag boroom xam-xam yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk wala ci fu ñu mën a nekk ci réew mi ngir mën a jàngatanteeg ñoom tomb yoo xam ne jamono da ko laaj te mu yitteel mbooleem nit ñëpp tey jii ñu baaxoo àndaat ak yéen ci émission boobu yi balaa ñuy def dara nag dañuy nuyu bu baax saahibul fadila cheikh mamadul muntaxa di ko ñaanal yàlla gudd fan lool ak wér ba naa li nga xam ne am na ko te bëgg koo liggéeyal maamam sunu boroom kàttanal ko ba mu amee ko nu kawe jortam di nuyu mbooleem jullit yëpp fu ñu mën a nekk di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk di weeru tabaski waaye ci weeru tedd yi ñu nekk di weeru aj makka nga xam ne ñu ngi fay jaamu yàlla yàlla ne sunu borom nangu ñaan yooyu te jëre fi mbooleem jafe-jafe yi àdduna bi ba bu déwénee incha allah ñëpp fekk ko te man koo def nañ ko daan defee comme ni ma ko waxee rek euh, émission man baxul murid yi tey am na mbégte mu yaa di dalal borom xam-xam bu mag boo xam ne ku ñu xam la ci fànn yii ku ñu xam la ci tomb yi nga xam ne yittee na jamono muy Cheikh Abdoul Akram Mbàkke mi nga xam ne fii da jànge ci dëkk bi waaye génn bitim réew yokk fam njàngam ba bokk ci boroom xam-xam yu mag yi ci yoon wi rawatina nag ci islaam rawatina nag ci àdduna xam-xamam di fànn yu wuute rawatina nag ci wàllum làkk walla wàllum koom ak yi nga xam ne da koy doxal mu keree sax daara ju mag di naan Euh, daaree kaamil numérique nga xam ne dañ ci jàngale xam-xam di ci jàngale njàngalem sëriñ bi ci anam yoo xam ne yu wuuteeg yi ñu xam la muy anam yu yàgg yi waaye anam gu yomb la goo xam ne xam naa ne du ñàkk yeneen jotaay ñu dalal ko ngir mu leeral yooyu euh, di créer na tam lu mel ne li ñu naan laboratoire li ñu naan laboratoire linguistique di foo xam ne ay mbind ak aw làkk nañ koy jànge rawatina mbindum euh, sëñ bii nga xam ne moom lañu fi bàyyil ci mbind moomu sax tey jii incha allah moom lañ fa fas yéene waxtaane tey mii mbindum ku baax ki sëriñ bi ku ne xam ne dañ naan bind na bàyyi fi am mbind mu wax ci lu bari ba ne karaamati xattu yat yi muy ay karaamaam ak li ko yàlla may lépp ci mbindum loxoom yu tedd yooyu la mbind moomu nag bari na lool loo xam ne kenn mënu koo takk waaye nag mën naa jafee xam mën naa neex a xam léegi kon ñu jox si Abdou Akram rek mu nuyoo balaa ñuy dugg ci tomb boobu yi nga xam ne was na koo waxtaane tey mu war koo lay tay ci lan mooy mbindum sëriñ bi buñ ko waxee xëy na luñ jublu lan la daan binde ak ñan ña daan bindal wala mbindam ci ñan la jëm ak ci yan tomb la jëm xam naa yooyu yëpp rek incha allah si Abdou Akram buñ ko mayee nopp dana ci ñëw kon siñ bi jox la nga nuyoo rek balaa ñuy ñëw ci dëgg-dëgg waxtaan wi <laughs>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 mbokki jullit mbokki taalibe képp ku ñuy bàyyi xel képp ku xarala gi jottali wax ji yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu nuyu bi ñu lislaam tànnan te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ndokkeel di leen sargal ci guddi yi ñu jëm wala yi guddi yi ñu nekk xam ne màgg yàlla màggal na ko lool màggal na ko ba tuddee ko sax ay yenn ay guddi wala yaalin ashri ak wa wal watri ak azkurullah fi ayaami maalumaat yi nag ayaami maadudaat yàlla màggal na ko bu buutal ko ay tur ci biir alquran ba sax xëy na euh, bu laylatul xadar gënee ci guddi yi euh, bëcc yowmu xarafa moom moo gën ci bëccëg yi loolu lañ wax kon ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp waaye nag ndokkeel gi ñu ngi koy teg ci loxol suñu jëwriñ suñu kilifa Cheikh Modou Mountakha ci ñaan yàlla dimbale ko liggéey bi mu song di ci liggéeyal ku tedd ki moo am ci lu kawe njortam jëwriñam yëpp yi koy jàppale ci liggéey bi it kenn ku ne am lu kawe sa njortu ba ñettee ñëpp ñëpp rek ku ci bokk ko ne rek kon nuyoo bi ñu ngi koy jot li ñëpp daal wax dëgg yàlla di sant ñi nga xamante ne it ñoo def ñoo ñu yombalal xëy na joxe joxe wax ji di ko jotli nit ñi incha allah. jërëjëf si Abdoulaye Karam ci nuyoo bu am solo boob yi nga xam ne euh, nuyoo nga ko ak mbokk yi ñu fàttali leen rek boroom xam-xam bu mag la boo xam ne day yëngatu ci wàllum jàngale ak rawatina yaatal mbindum Seexul euh, Xaddim mi nga xam ne tey moom nañ fa seen i waxtaanee tey yéen a ci seen émission Al Manbahoul Mouridi di ballukaay Mouridi di émission boo xam ne euh, GMT TV anda ci Lamp Fall TV ñoo leen koy indil ngir di ci daral ay borom xam-xam di ci waxtaan ay tomb yu wuute yoo xam ne na askan wi. tey jii nag tom ñu jël tey mooy mbindum seexul xaddim mbindum ku baax ki nga xam ne bi set nit ñaa ngi koy jàng bi set nit ñaa koy tiim mu fasantikoo ci yu baree baree baree bëri léegi nag si Abdou Lahad Karam lan mooy mbindum sëriñ bi jëmmam mhm. buñ ko waxee mooy lan <laughs> waaw sëriñ Abdou Lahad ginnaaw bi jéem rek laaj la waaye buñ doon wax lan mooy mbindum sëriñ bi mooy dañ koy tàmbalee li li nga xamante ne moo moom la xalimaam ko doon yàbbi moom ko tedd ki ci diirub ndax liñ ci jot am na ñu ne booba ci buñ ko nattoon ci atam ba mu ko tàmbalee def nga xam ne ñaar fukki at yi matagutoon ba bi ba bi fi jógee mën nañ ne bàyyigu ko jamono bu nekk mi ngi bind te loolu boo ko wàññi woon bu daanaka day mat genn wàllu siècle maanaam juróom fukki at yi day teg maanaam daal boo ci génnewoon sax ci gàttal boo ci génnewoon dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëriñam ja li ci des du bari maanaam mooy loolu diggante boobu mu doon bind nag loolu lañ jàpp ne moom lañ tuddee ay mbindam waaw mu jëmale ko nag fu bari waaw <laughs> euh, allah loolu leer na nañ kon daal sëñ bi mën nañ ne. Mm-hmm. Euh, jamono jim nekkoon lépp rek. Mm-hmm. bi mu bi mu xàmmee ba nañ ko noppee gis ni ko Cheikh Amadou Mountakha di waxee lépp rek ci bind la ko defoon. Mm-hmm. lépp ci bind kon day mel ne kon bind na lu bari. Mm-hmm. léegi yim bind yan la ak yan tomb la bind. ak ñan la ko jëmee woon. ginnaaw ñu xamee ne sëñ bi kat bindam mooy li mu bind ci loxoom. li mu bind ci xalimaam boobu nga xam ne daan wax naan damay bind di ko toxale ci lawxul maxfuus. ak tubu naa xilan min allaahi wa min xalamihi wa fii xuruufi lam amin mhm. kon loolu leer na léegi kon sëñ bi ginnaaw bi ñu xamee ne àddunam sépp wala ci léppam ci bind la mhm. jox na ko solo bu baax mhm. kon léegi ci lan la daan bind wala boog ci ñim daan bind ci lan la ko daan jëmale waaw mbindam manees na ne manees naa jël benn bayit boo xam ne mooy hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi dikri ma salaati wa bil madhi boo xoolee bayit woowu xëy na wenn bayit la waaye leeral na yoon bi nga xamante ni ci la mbindam di jaar ndax buy bind nee na ci tawxid lay bind maanaam wéetal yàlla walla ci lislaam wala ci lixsaan tawxid léeg-léeg mu ko tudde iman lislaam ci xam-xam bi ko jàmm tudde fiq ak lixsaan mm-hmm. muy muy tasawuf mm-hmm. ak it nag euh, ak it leneen loo xamante ne day day day yeneen yoo xamante ne day jaxas day mel ni loolu la ñuy boolewaat mm-hmm. mooy nga xam ne ci biir yooyu lay nekk sax mm-hmm. wante moom moo ko tuddee noonu xëy na mm-hmm. mooy zikr ak salaat ak madd madd xëy lañ koy bindee waaye tagg lay tekki ba tey mooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam tagg bi sallallahu alayhi wa sallam ak julli ci yonente bi sallallahu alayhi waaye nag ak di tudd turu yàlla wi day mel ni kon génnut yooyu noonu lu mu bari bari bari bari mhm. boo xoolee mbind mi du génn ne mhm. sëriñ bi mhm. tawxiid lay jàngale mu ngi joxoñ maanaam wéetug suñ borom gën ne suñ borom nañ ko wéetal wala mi ngay joxoñ ne yàlla kat bëgg nañu def lii wala yàlla bëgg nañu bali wala ma ngay joxoñ ne lii kat gannaaw ba nga ba nga waxante ak sa borom ba ba ngeen siñeente ne eh, gëm nga ko nangam ak nangam lii nag mooy rafetal gi mooy tax mu rafet ba ba ba rafet daal mooy tax mu mucc ci ayib mooy ahsaan mm-hmm. loolu nag mm-hmm. mbindam génnut loolu mm-hmm. mbindam li muy bari bari génnut loolu waaye nag ni ngi ko jéemee ci jamono bu nekk dana am mbindam loo xamante ne da xam ne daanaka jamono day nekk ni jamono bam bam bam nekkoon moo ko moom la soxal waaye dana am jamono yoo xamante dana mbind loo xamante ne ñëwut la soxal waaye dana am yoo xamante ne jullit ñi rek la soxal waaye dana am loo xamante ne nag adduna bépp la soxal mm-hmm. adduna bépp la soxal mm-hmm. dana lépp loo xam ne loo ne adduna bépp la soxal mm-hmm. Euh, macha allah loolu leer na naññi kon day wane ne sëñ bi mbindam lim ko tax a jóg rek ku ne xam ne ne bindkat yi xam naa nag tom bi ci dëgg-dëgg ñi jëm ci wàllum bind ak yi mel noonu lay gën a yitteel waaye dana am solo ñi nga xam ne dañuy gëstoo xam-xam ñoo xam ne képp kuy bind mhm. am na lu ko tax di bind mhm. waaye sëñ bi li ko tax di bind mooy mhm. dundal islaam li ko tax di bind mooy yeesal gi mu waxoon dañ yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tax di bind mu tënk ko nag ci aw bayit muy euh, yaa ma addiyeer yaa ma jox muy li muy bind kat mooy ci tawxiid laa ko jëmale mhm. ci fiq laa ko jëmale mhm. tasawuf laa ko jëmale ak ci mhm. tàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam daal damaa ñëw ngir leeral li nga xam ne moom lañ dëxëñ xëy ci alxuraan wala ci xamam ma di ko leeral ci samay mbid moo tax fu nekk bind na fa lu nekk bind na ko ginnaaw bi ñu xamee kon li ko taxoon di bind kon xanaa war nañoo mën a xam mbindam ci ñan la ko jëme woon message bi mu doon lan mooy message su bindam sax da euh, euh, ba noppi sax boo ko mm-hmm. mënee xaw a gën a yaatal tuuti mm-hmm. ak ci ñan la ko jëme maanaam ñan la doon bindal mm-hmm. cible bi mu doon bindal ñan la ndax ay mag la wala ay gone la wala ay nangam ndax fi ne gis nga bindkat boo xam ne buy bind politicien bi lay bindal gis nga bindkat boo xam ne buy bind gone yi lay bindal waaye sëñ bi moom ginnaaw addunam sépp bind la ngir leeral lislaam léegi ñan ñoo ko taxoon di bind kon waaw boo xoolee ci ci mbindum sëñ bi dafay dafay xaaj doomu aadama yi xaaj bu yéeme daa wax ne am na loo xam ne ci mag ñi ñoo ko nettali ci wolof moo daa wax ne gone boo amee juróom-ñaari at yu jëkk yi mais yu juróom-ñaari atam yu jëkk ku ko tee ne juróom-ñaari at yi ci tege ku ko def buur dajeeg buur daa di wax ne yeneen juróom-ñaari at yi ci tege nag bu defee boppam buur dajeeg buur xam nga loolu noonu ba ko suñ bee wax xëy na kenn ku nekk ñu ngi cee jariñoo mhm. waaye ba tey jii ay borom xam-xam yu mag sax yoo xamante ne du ñuy jullit sax waxuma ak nag doon murit mhm. noonu noonu ko noonu lañ koy xaajawaat mhm. gannaaw buñ ca sonnee lool lool lool gannaaw buñ ca sonnee lool dem ci sonn ba buñ bindee na ko suñ ko xaajowoon la koy xaaj la koy waxewaat nga xam ne loolu daf ñuy dellu si ci li suñ boo xoon ne yaa xayra munzalin yuri ma xaabasa tadabburi rabbi yusafi fikari bi ka bi xayri tuhami maanaam alxuraan lay tagg naan ko yow yàlla mi nga yow yaa yow ngën ji li ñu wàcce mm-hmm. yow mi nga xamante ne yaa may woon loo xamante ne ñëwagut mm-hmm. mm-hmm. wala loo xam ne na waaye nag yaay sama xel xam nga xel mu sell mooy tax xel mu sell euh, mooy tax léeg da ngay gis waxi sëriñ bi wax ji day dugg dugg dugg doo ko sax sikk sàkk du lépp day nekk dëgg nga xamante ne nit tey jii bu doon bu doon bu doon ci àddina kese rek buñ ko waxoon ci ñi nga xamante ni ci àddina rek la ñu nekk dañ naan kii moom fan la génne maanaam ci ban école bu mag a la génne wala ci ban laboratoire la génne wax lii mm-hmm. waaye sëñ bi moom moo ñu leeral boppam daan ne mm-hmm. loolu muy wax noonu nga xam ne dañ ciy jariñu mm-hmm. loolu ci seetantal gi muy seetantal alxuraan moo ko ko may léegi nag kon bi muy bind looloo tax nag mu xaaje noonu léegi nag kenn ko ñu la bindal bi mu bindal ñi nga xam ne ñu ci juróom-ñaari at yu jëkk yi mën nañu jël lu mel ni tasuudu si xaar nga xam ne bi mu koy bind mën nañoo jàpp ne juróom-ñaari at yu jëkk ko moom Euh, ak lu mel ni na bis ma nañ ko boole foofu mhm. lu ci mel ni am na ci yeneen teer yoo xam ne rek da gis ne yeneen juróom-ñaari at yi ci dëkk bi moo ko tax a jug xëy na mhm. bu dee lu mel ni naxaju bu ko jëloon nag xëy na mën naa am yeneen juróom-ñaari at yu mujj yi ko mën nañ ko boole foofu daal mhm. xëy na sama sama gis-gis nekk juróom-ñaari at yi ci digg bi waaye benn bu ci ne lam cay wax euh, bu ma jëlee ñëw misaal rek waaye dana ñëw ci yeneen sax mag ñi ndax euh, ku bàyyiwut ku ne wa man tazaaraka la si xat faata min allaha wa amal la faata mhm. kon bàyyiwul bàyyi bàyyi bàyyi waale fàtte bàyyi waalewul xelit ñi nga xam ne ñii ñii moo tax ñu koy bind mhm. waaye nag bàyyi waa na xel ñi nga xamante ne dem nañ ba nekk mag mhm. kon li mu wax foofu bu dee ñi nga xamante ne juróom-ñaari at yi ci digg bi lañ ne dafa leen a dénk lenn mooy yaayaa sibiyaanu la tashaxilu anil huda wa bil ulumi shaxilu dane leen moom li mu leen dénk li leen di xëy di ci di ci gont shahala buñ ko jëlee ci arab mhm. xam nga ñëw na ci alxuraan mhm. ci gàttal sax yooyu sibiyaanu ba ci haykum nasiyati lakum fatarabbasu dunya ukhra ma xam ne aflaxu mhm. benn baat rek moo ñëw alxuraan muy xaayida ba ñëwee sibiyaanu ñëw na ci alxuraan la tastaxiloo ñëw na ci alxuraan huda ñëw na ci baat boo ci jël rek ñëw na ci alxuraan boo jëloon tilaawa fastaxilu bil xifdi wa tilaawa ñëw na ci alxuraan lu toll ni dundu yonente bi sallallahu alayhi wasallam 63 fois euh, li mu wax foofu mooy kooku li mu leen wax mooy. yéen bu ngeen xëy soxla li mu li mu leen mooy boo xëyee bu fe boo yeewoo. ba keroog muy bëccëg. lan ngay def. loolu la doon hudaa. maanaam boo xëyee ba jant so li ngay def na doon hudaa. wala boo xëyee ba bëccëg. ak boo ngoonee. hudaa nag daal di leeral ne kon mooy na ngeen jàng alxuraan jàngu mokkal ko. bu ngeen ko mokkalee ba noppi ngeen di ko jàng jàngum jaamu yàlla. bu ngeen ca noppee nag ngeen xam seeni farate diin. kon ñooñu lim leen bindal li nekk foofu rek doy na rawatina sax ñu doyal ñëw ci farata waaye li mu wax foofu rek doy na mm-hmm. euh, bu dee ñi nga xamante ne ñi ngi ci juróom ñaaree at ci digg bi mm-hmm. lim leen wax mooy mm-hmm. ne ngeen sàkku xam-xam day mel ni ñooñu xam-xam la leen gën itti lii waaye nag te neen ko sàkkate yàlla rek tax ma ngi naan dina mën naa fa sëriñ tabaax ko sàkku bu leen ko sàkku ngir rek ne man maa fi ëpp xam-xam mu doon yëfu xëccoo wala ñu koy puukarante wala aw wala sax di ci am daraja ci nit ñi ndax boo ko amee ba pare ñu naan moom kat am na nangam ñooñu loolu loolu la wax ak ñoom bu dee ñeneen ñeneen juróom-ñaar yi ci des nag nga xam ne man nafa ju laa koy tuddee boo gisee lim leen wax euh, lam ca wax daa tàmbali daal leen jox saxaaba yam ne leen ñooy seeni royukaay wax ci lu baree baree baree bari fa asbatu nusa bila shiqaaqi ismala ko nuusa bi stirxaaxi wax na ci lu bëree bëri min saaratil xuzaaxi xasul xalaawati min al waaye li ca ëpp solo ca mujj euh, bi lam leen wax nga xam ne tey jii buñ ko jëfandikoo woon ci am réew sax man naa suq mën naa mën naa xeccale am réew daa wax ne falaatu saahibin arata sooba saa safayin aw xasadin aw raxba da wax ne àdduna booy ànd ak nit bul ànd ak koo xam ne dañ koy xalaatal mhm. maanaam dañ koy naan ko defal mu def mhm. nga xam ne xëy na na muy jàngale ay xale wala na muy jàngale am réewam wala na muy yore économique wala na muy fejee ay ay malaadam mhm. ne fer gi wala wala programme éducation ba muy teg yëpp dañ koy xalaatal rek muy teg nee na kooku du mës a dem te kooku du mës a dem kooku du ko ñu àndal keneen ki mooy xasadin ah, mooy koo xam ne eh, ngeen baal ma ci baat bi iñaan la ko tudde xéewal moom da day gis xéewal nii waaye day bëgg xéewal gi dañ mhm. ki ko ñetteel mhm. muy rax ba la ko tuddee muy bëgg àddina wala lépp luy niroog égoïsme wala yu demee noonu yàlla na ci yàlla musal mhm. ndax nee na ñett yooyu ci da koy wax rek nga xam ne dañu tënk ñett yooyu maanaam fu mu nekk maanaam njariñ du fa am réew mu am itam tey jii ngeen baal ma ci baat bi tudduma benn réew xëy na wante Mm-hmm. réew muñu am bu ñu amoon pétrole duñ ko jariñoo li pétrole bari bari njariñ mm-hmm. bu ñu amoon gaz njariñ la du ñëw mm-hmm. bu ñu amoon laneen ak laneen damaa jëleen nag kon ci ci àllaaxira nag njariñ ñàkk njariñu àllaaxira rek moom waxuñ ko ndax maanaam ndax suñ muy wax bu wax alxuraan maanaam njariñul àddina lay wax ak njariñul àllaaxira li ñu xañ àddina lu ñuy jariñ àddina lañu lay joxoñ ak ak ak lu ñuy jariñ àllaaxira boo gisee loolu kon hmm. kenn ku ci ne lim loolu mu ñu wax noonu buñ ko doon bàyyi xel hmm. nga xam ne gone gi bu amee juróom-ñaari ñu bàyyi xel ne kat sëñ bi lii la ci waxoon juróom-ñaari jëkk yi hmm. juróom-ñaari ñu bàyyi ko xel ne kon àdduna du ñu ñee kenn kenn ba àddunay tukki du ñu ñee kenn kenn lu ñu naqari ci àdduna bu afekkee am na lu ñu naqari yàlla bu ñu daan naqare waaye bu ñuy dara naqare xëy na ci ba ñàkk bàyyi xel loolu lay doon kon li muy bind kon ñooñu noonu la ko xaaje bindee ko noonu Mhm. beneen juróom-ñaari boobu nag daanaka ñi des ñëpp ñooy xaw a bokk fuñ kii mhm. waaw. Mhm. Euh, macha allah. Abdul Akram. Oh, am na solo lool te leer. mën naa ne tomb bu tey bi la ci am solo mooy. Euh, képp koo xam ne ab bindkat la rek. dana la jàngalaale méthodologie bi ngay binde mooy li tax ngay bind daa war a leer. méthode bi ngay jaaree pour bind daa war a leer. Mhm. waaye cible bi tamit daa war a leer. Mhm. loolu yaakaar naa képp kuy bind mémoire wala dara. Mhm. loolu moom forcement da nga ko bind. mbind sëñ bi danañ ko ci fekk. ñaari xasidaam gune wala dara. dana wax lu ko tax a jóg. wax nu mu tuddee mbind mi wala yu mel kon loolu leeral nga ko ne. sëñ bi bu daan bind. mbindam du am espace ak temps. maanaam euh, par exemple ñi xam littérature. danañ ne kat. Mhm. Mhm. littérature bu nàngam littérature bu nàngam mhm. xaaj ko ay xaaj waaye sëñ bi moom affaire moom mbindam amut loolu ñëpp lay waxal jamono bu nekk la mu xaajal ñim cible bi mooy ñi tax muy bind ku ci nekk mu am lu mu la jagleel ndax bu fekkente ne Euh, daa war a am loo xam ne da ko war a jàngal am mag mhm. mu wax ko ak xale boo xam ne ak gucc mhm. kooku bu ñëwee di li daan ah lii de man concerné ma mhm. léegi ku nekk nag mu wutal ko bosu boppam ba noppi am bu mu leen boole ñoom ñëpp nag mu tàmbalee ko ci lan tasawudu si xaar nga xam ne fii euh, gone gi di jànge fi muy commencé xàmmee mu ne ko yow di laa la nekkal ci lii ba ci kanam bu dem ba caag mu évoluer muy tasawudu subaan mhm. dem ba caag mu def noonu mu def noonu mhm. ba dem nag ba ca njobbaxtan la nag mhm. kon loolu leeral nga ko bu baax a baax a baax ci tomb gi waaye léegi loolu lépp nag génnul ne sëñ bi kat eh, dundal islaam rek moo ko taxoon ndax doon na wax naan ni tawaalifu saadaat yi tawaalifa saadaat yi ujaddidu naasiha mooy taalif yi nga xam ne ñi ma jiitu woon ñooñu la ñëpp moom da jéem a yeesalaat loolu rek kon moom moo ko taxoon di bind kon mbokk yi nga xam ne ñu ngi leen di fàttali bu baax na mhm. yéen a ngi topp seen chaîne bii di GMT TV lëkkaloo ak Lamp Fall TV ci émission bi nga xam ne moom mooy Al-Manbahul Mouridi tey ñu am mbégte mu yaay di daral borom xam-xam mag muy Cheikh Abdoul akaram euh, ñu war a waxtaane mbindi ku baax ki nga xam ne saa su ne ñi ngi koy jàng ñi ngi koy tiim waaye mel ni Cheikh Abdoul mhm. daa mel li ñuy wax ñu bëri bu ñu naan mbindi Sëñ Tuubaa rek mhm. dañuy jàpp ne xasiida yi rek moo tax muy wax waaye daa mel ni gën naa yaatu loolu de lépp loo xam ne nag luy baaxal la islaam wala lu koy yeesal rek daa mel ni bi noonu la bind xanaa bu fekkee ne mën ngaa gën a dugg foofu wala ba xam loo xam ne mën nga koy indiwaat ci yeneen. Mhm. Eh, ci luñ mën a jariñoo ci mbind sëñ bi. ginnaaw bañ jógee ci tomb bi nga xam ne mooy. Mhm. Eh, catégorie d'âge bu nekk. wala ku nekk fa mu rek moo am lu la bindal jox la am loo xam ne ñëpp la ko boole. Mhm. ba tey thème yi nga xam ne ci la daan bind rek. ak mbind sëñ buñ ko waxee rek ndax xasiide yi rek lañ ci jublu wala ndax ba tey eh, gën naa yaatu loolu. waaw loolu euh, da gis ne euh, mën nañoo jàpp ne mbindu sëñ bi lépp la lépp la euh, donte xëy na léeg-léeg mm-hmm. nit ñi nag mm-hmm. fi ñu gën a jëm moom mooy ci xëy na xasida yi noonu la ko mën a waxee mm-hmm. wante lépp mu moo barkeel yàlla da yàlla da ko defal loo xam ne lu mu laal mu barkeel maanaam yërmande malaaka yërmande yi yu loolu la am mhm. waaye nag nit ñi xëy na ci xasida yi lañ gën a jàppee ne rek mhm. euh, surtout yu mujj yi rawatina yu mujj yi mhm. yooyu lañ gën a jàpp ne loolu foofu lañ gën a féetewoo daa doon géej nag daa doon géej goo xam ne dafa yaatu yaatu na ci lépp ndax ni ko ni ko si muntaxaari waxee yàlla nañ ko yàlla sàmmal daa wax ne nit daa war a jàng yi bu jaay jàng ba ne ar ndax xasida yi boo ko dee xool léeg-léeg bët bu set lu la yëm rek ngay gis ci ñaan yi sax mhm. léeg-léeg ñaan yi mhm. dangay gis ñaan goo xam ne mhm. dag na lii li tax maanaam wurta maanaam xelum doomu aadama waru ko mën a daj maanaam yàlla ci boppam moo ko yenkewal sëñ bi ne ko ñaan ko ndax dana am ñaan yoo xam ne xam nga wajaxal xuruuf yi te fiali rusuli maanaam sama sama bayit yi sama araf yi yow la maa ngi lay ñaan nga defal ma ko mu mel ni jëfe yonent xam nga ñaan googu xel daju ko daa bari ci ñaan yoo xam ne xel du ko daj da cee bari boo demoon ci lu mel ni eh, kii rek hmm. eh, sindi di noonu la demee hmm. waftax lanaa kulla baabin kunta faatihahu lissaalihi min xayri yàlla wasuk dimina nahji rushidin wa qina zallan wa tunajjina wa cheytaan yàlla wa kammilan kulla ma nanhu wa naqsuduhu wa hab lana kulla ma naxtar yàlla woorut lanaa kulla si hmm. saabin wa zi xaranin xam daanañ ko firee tey jii ku waroon mhm. maanaam oto mën nañ bu doon ci oto daal mooy nga waru oto mhm. dem ba ci yoon yi nga paane essence mhm. ndax booba daanañ ko jëfandikoo ci xay ne war waaye njaan war lu mel ni fas nga dem ba ci pénc bi mu taxaw ne dama tut xam nga ñaan koo xam ne bàyyiwul daara daara daara lépp loo xam ne jar naa muslu ndax loolu lépp ndax lu mën a doon rek aw yoo sax yoo yàlla ci boppam moom kàttanam bu ko neexee mu def ko ci yow wan wan jaam bi ne ko man maay yàlla mm-hmm, mm-hmm. sëriñ bi nag di ñu joxoon ci loolu mm-hmm. dañu joxoon ci loolu ne nañ xam kàttanu suñ borom ndax boo gisee ma ngi naan xara bardin aw tàngoor nii yàlla mën na ko ma yàlla mën na cee wane kàttanam akub sedd jàpp naa ne mas naa xew su bu ma jumut Italie jamonoy deux mille trois tàngoor woo xamante ne doon na àgg ji di sonal nit ñi sedd it loolu loolu mën na am sedd mm-hmm, mm-hmm. su ko defee yooyu yëpp jàpp naa ne fan yi rek boo gisee ah, lu mel ni mën nañu wax ne Allemagne sonn nañ lool tu leen bett ne gën a am ci ay ay yu jékki-jékki di kii noonu mm-hmm. ndax yooyu yëpp suñ borom dañ koo war di dañ koo war di ñaan di di fàtt di di yëg kattanam gi daal di gi di ko di ko ko ñaan loolu nag maanaam day mel ni bu du ko nag sëñ bi duñ ko xam man naa ci joxe bu beneen misaal lay joxe dama naan suñu ñàkk xam man day mel ni suñu ñàkk xam mhm. sin bi dañ dañu koo dindil mhm. wala xafla lañ koy mën nañ ko tuddee la mhm. xam nga ab yónente bu ko yàlla yónni li tuntira xaw ma maa untira ba mu foom xaafiluuna day am lu bari loo xam ne seen xel du ci dem léegi nag yónente bi naan na dem ci bi lu ci bari loolu moo ci am seen xel na dem ci ne tàng sawara sa tàng sawara wala tàng wala tàngaay wala sedd yàlla ci boppam mën na cee yàlla mën na cee wane kattanam dama dinaa joxe misaal lu mel ni mbindu sëñ bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. xam nga xel xel ba tey dana jafe lool xel mm-hmm. euh, mu mu mu xalaat ba xam ne mm-hmm. maanaam dañoo war a bind ak xasida gu mat sëkk di ci julli ci bi dong rek allahumma salli ala sayyidina Muhammad allahumma salli ala ba xasida gi jeex ci koo xamante ne ni mu ñàkke woon jot ni mu ñàkke woon jot wala xelit ci boppam dana jafe lool mu xalaatoon ne wa innaka la'alaa xuluqin aziim ci alxuraan maanaam dañ cee maanaam dañ cee war nga cee def lu ëpp benn benn minute daal waaye naka la alaa xuluqin azim sëñ bi jël waaw gi daj fukki bayit ak ñaar hamza gi fukki bayit ak ñaar nun gu ci ne fukki bayit ak ñaar ba mu àgg nga xam ne boo jàngoon xasida gi da mel ne waaye naka la alaa xuluqin azim yow def nga ci lu mat waxtu loolu dana jafe ci xelum doomu aadama mu xalaat bàgg ko mm-hmm. mais kon mm-hmm. euh, gis nga suñ borom mm-hmm. maanaam ko moo moo koy xamalal boppam mm-hmm, mm-hmm. xamal googu nag day mel ni day dafay ñëwaat sëñ bi mm-hmm. rafle jàggante giñ gi giñ amoon nga xam ne am na loo xam ne su maanaam xamuñ ko xalaatuñ ko woon mu ñu xalaat loolu loolu loolu mooy feeñ ci kii bi mooy feeñ ci ci mbindam nga xam ne ab joxoñam bët bu sor rek da ngay gis leneen lii misaal la rek xam nga ko naan wajhal aw fi mu'jizatin uxirat wa xayratin ladayka duxirat maanaam araf maanaam léeg-léeg muy ñaan mu bokk ci xam nga yónente bi am na kiimtaan gu dul jeex mhm. waaye bu mooy aarafa am na na ma bokkaat ci kiimtaanu yónente bi mhm. wala kiimtaanu yónente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. gu gu koy dëggal maanaam luy wane ne yàlla yónni yàlla mooy yónni yónente bi wala yónente bi yàlla moo ko yónni kon loolu xëy na nag yu demee noonu mën naa am it mën naa am comme li ma wax nii te nit wax nañ ko lu bare man naa tax nag mooy gën a poussé nit ñi sax laa wax ne mhm. ñuy gën a jëm foofu xëy na ndax bët bu set mhm. dañ ciy gis lu demee noonu waaw mhm. dañ ciy gis ne eh, maanaam lu lu lu lu xel dajul rek nga ci nga ci dajal daal euh, macha allah loolu leer na ñi bëggoon a wax rek mooy mbindum sëñ bi gën naa yaatu ñu euh, jëmale ko ci xasida yi rek donte ci la bokk. Mhm. xasida yi ci biir mbindi sëñ bi la bokk waaye bu ñu naan mbindi sëñ bi. Mhm. téere xam-xam yeeg wax yeeg xikma yeeg yëpp ci la. Mhm. loolu nag boo boolee yëpp nag. Euh, génn dara muy. dundal islaam ak leeral ko. ak sant yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye nag xasida yi di tax ñu gën cee jëm daa neex. Mm-hmm. ba noppi te njariñ yu baree baree bari mm-hmm. moom la làmboo bokk na ci mm-hmm. njariñ yi mu wax mooy dalay may ngay tudd li nga waroon tudd uh, uh, yàlla benn minute xasida gi nga jàng ko tudd yàlla ay ay waxtu li nga waroon julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne boo jullee ci moom tuuti yàlla julli ci yow lu bari mu mayee la ko yaatalal la ko kon njariñul Euh, xasida yi ak njariñul ay ñaanam ak yooyu mm-hmm. looloo tax nit ñu bari gën cee jëm waaye euh, sëñ Abdou Karam bëggoon naa ñu taxaw tuuti ci ñaan yi nga xam ne sëñ bi ñaan na ko ci xasida yi mm-hmm. ak lool lan lay jëriñ doomu aadama bi ndax yaa ngi ñu léegi ay sindi yooyu boo mënoon di gën a insisté ci wolof yi xëy na euh, tëngal ko ñi nga xam ne xëy na dañuy seetaan pour ngir ñu gën a xam mm-hmm. njariñul mbindi sëñ bi ak njariñul ay ñaanam ak teggini ñaanam day ne da leen bëgg a wax ne Eh, yéen kat bëgg ngeen ñaan waaye xamu leen ni ne ñaane mhm. sëñ bi bindal leen ni ñuy ñaane dëgg la waaw loolu dëgg la junj <laughs> ah, yenn ah, bind yi nga xam ne rek ñaan yi secret ca nekk mhm. waaye comme junj ko sànq ay mhm. ah, xarin wa bardin wa nax bin da xam ne tàngoor woo xam ne day lore baaxut Seydina Ibrahima so bardan wa salaaman dëgg yooyu nga doon junj ne équilibre bi muy def nga xam ne du ñaan loo xam ne eh, ëpput wala mu yées loolu nooñ ko yooñ ci mën a tënkal ci mbind sëñ bi si ñaan yi si waaw kay waaw li ma ci mën a dañuy gën a leeral ñaanu wàliyu maanaam ñaanu wàll yu xam nga ñaanu yu boo ko doon joxe misaal euh, si Abdou Lahad Mbacké yàlla ñu ko yàlla fayal xëy na dañoo mës dégg mu wax xëy na euh, mën naa am jamono boobu benn benn benn télé moo fi nekkoon daal xëy na wala benn rajo mhm. te yaatu gi amutoon mhm. bam bam bam bam ñaanoon laa wax man ñaanoon mhm. yàlla yaatal mhm. euh, maanaa waxu yaay waxu kaay gaab man noonu laa ko déggee mhm. am na lu mu ci am na xam nga am na lu mu ci wax daal ba tudd xëy na teele ba ca malek nangam ak nangam li nga ñaanu wàllu boobu moo waral tey tey jii daanaka boo bal boo seetloo jamono bi ñuy waxee yow xalifa bi yeeg wala lu soxal yoon wi wala lu soxal kii bi day mel ni feneen lañ koy xame duñ mhm. ko xam nga mhm. kon ñaan nga moo nangu tey loolu lay wax ba ak ci ay xëy na Facebook ak wala yu demee noonu mhm. jàpp ne noonu ndax ñaanu wàll yi moo demee noonu léegi eh, boo gisee kon ci ñaanuk sëñ bi am na ci bayit woo xamante ne wu doy waar la mu nekk ci rabbi bi ma sharxul azaan xad fajaa bi jayef dari man lay xad la jaar xam nga booba man mhm. nañu ci jël bayt bu mel ni irham jami al wara yaa malikal mulki yaa man jalla xam xawatin irham jami al wara yaa hadiyan rada mhm. xëy na sax euh, sama déggéen laay wax mhm. ci bayt bi ba sama déggéen mooy sëriñ bi li mu doon ñaan foofu mooy lii ñu mooy jàmm irham jàmmalal jàmmalal ndax bay bayti sëñ bi am na ci yoo xam ne dama naan dafa jafe lool ba dana laaj boo ko bëggoon a dana laaj eh, ñetti nit ñoo xamante ne bokkuñ mhm. luñ def mhm. te lañ def ñu xóotal ko sonn ca mhm. damay jàpp ne irham boobu ci boobu ci boobu la bokk irham jamial wara mooy nañu ñaa jàmm la ñaan àdduna bi maanaam ñu wàññi xeex bi ñu wàññi xeex bi mooy nañ ndax boo booba jamono booba mbindeef moo mës a gis weñ comme weñ yi ñu jàkkaar lool booba weñ yooyu sax mën naa indi nit musiba ndax la waral lool loola xëy na mooy del dem gànnaar gaa yooyu ay laal dong la mhm. kon ay laal sax man mhm. naa indi man naa taal mën naa taalub réew mhm, waaye nag suñ suñ bi lam doon ñaan xëy na sama déggin mooy léegi ndax ndax li koy gën a leeral man nañ laa woon ay vidéo yoo xamante ni mu ngi xewoon ay guerre mondiale nangam ak nangam ñu ne la fii nii rey nañ fi nangami nit bu daal ki koy wax mooy leeral li tax ñu rey leen mooy këriñ doo nga fa nekkoon damaa jëlee la yeneen ak yeneen mm-hmm. kon boobu këriñ sax bu nekkee ci réew day sonal li ñu kon mm-hmm. Mm-hmm. léegi nag sëñ bi la mu doon ñaan mooy mbindeef mu nekk doon noflaay mbindeefam loolu waral suñ téléphone yi bu ñaan ko nangu wutoon suñ téléphone yi ay fetal lay doon ku teg ko ne fetal nga yor wala paaka di ko kii loolu la loolu la tudd irham jamial wara léegi nag ki bëgg a leeral loolu pour mu wax koo xamante ne dana soonu ci raxma lan lay tekki ndax raxma ñëw na ci alxuraan lu ëpp fukki yoon raxma dana ñëw ci alxuraan di firi taw mm-hmm. Mm-hmm. dana fa ñëw di firi tawféex dana mm-hmm. firi nubuwa dana firi iman dana firi lislaam dana firi alxuraan dana firi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana firi sax yonente yàlla isa di firi jàmm man nag boobu laa jël dama xool dama xool yi muy ci alxuraan ma xool ba ci firi jàmm mooy nit ñi ma joxe booba ma joxe booba ma joxe booba mën nañ cee joxe misaal boo jëloon saala gi firi laaj na sa àlla boo ñëwee sa wut si xaar ñett ñëw ñetti yoon ñëw na ci yoo xam ne benn ci bokk te morom lu firi mhm. ndax boo di boo demee sa àlla dana firi mhm. istifta gàggante na mhm. dana firi ñaan na dana firi yalwaan na dana firi sàkku na kon dafa mel ni Eh, dafa mel ni kon eh, am na it mbir yoo am na ci bayit yoo xamante ne kon firi ko mhm. laaj na mbooloo yu bari eh, laaj na ay ay taxasusaat yu bari bari yu différent ñu mhm. ànd dëppoo ja daan lii nii ku ko firi woon nii mhm. loolu lay kii am na yeneen bayit nag waaye damaa tànn yar xam jàmmee na wala rek ñu firee ko jàmmal waaw jërëjëf macha allah am na solo kon loolu day wone ne rek sëñ bi moom ak ñaanam bu ko ñaanee xëy na baat bi mu ñaan li ñaan gi wund mooy koy gën a yaatu loolu tam na ci particularité wala jagle yoo xam ne ay mbindam am na ko waaye solo soo xam ne ay mbindam am na ko ñu war koo jàngat waaye day mel ni juñu nga sànq nag ci firi ay mbindam nag rawatina niñ def yenn alxuraan tafsir nañ ko xadis eh, am na ay mustalax ak yu bari kon day mel ni mbind sëñ bi war nañ ci liggéey ci firi ko comme ni nga ko waxee ne benn baat bu ne nag mën naa lëm yu baree baree bari kon waxtaanu xëy na wolof yi kii euh, waxtu yi moo ñuy xaw a xoj rek waaye danañ ko gën a yaatal incha allah ni ma ko junjee rek si Blackaram ku jàmbaare ci wàllum euh, làkk rawatina yàqu baat ak yu ni mel te mbindum sëñ bi kenn mënu koo xam te déggoo loolu euh, ni mu ko leerale tamit mooy sëñ bi dana wax bind dana wax xasiida dana wax taalif dana wax yëpp waaye yooyu yëpp rek génn ci mbindam léegi xëy na kon sëñ bi bu fekkee waxtu wi da xanaa moom mooy xaw a xat rek waaye fi waaye fi nga daanee la am na solo lool muy ñaan yi ak baat bu nekk rek lim mën a wund lu baree baree baree baree bare ci mbind sëñ bi kon xëy na bu fekkee am na leneen loo ci yokk rek sëñ moom ñaan yi tamit bàyyiwu ci dara mm-hmm. bàyyiwu ci wërsëg mm-hmm. bàyyiwu ci eh, mbind yi mm-hmm. sant am na ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan xéewal nga xam ne ku koy jàng yow sëñ bi dalaa dimbale daa fekkoon loo mënut mu mënal la ko mhm. waaye universalité yi nga xam ne mhm. ba wut dara mhm. ba wut lenn ba wut kenn ba wut fenn ba wut ñenn loolu am na ci mbind sëñ bi kon xanaa looy yokk ci loo xam ne xëy na laaj nañ ko wala bëggoon nga koo yaatal wala bu ko defee ñu tàggoo xëy na yëkkati jotaay bi joxaat dox dig daje mbokk yi rek ci yeneen tomb xam naa yow moom ñu far di far <laughs> kii la kii rek di la indi bu baax a baax a baax mat di eh, dalal la ndax xam-xam bi yaatu na loolu te macha allah waaw kon te xanaa ginnaaw waxtu wi foofu lay kii rek xam naa nañ nuyu mbooloo mi ginnaaw waxtu wi jot na nañu tàggatoog mbooloo mi xëy na léeg-léeg dana joxoñ joxoñ yoo xam ne day mel ni léeg-léeg koy gis faneen sax te ñooñu ci àdduna rek la ñuy yëngu lu mel ni inna lasi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimi wala af nal funun kon daawoon na ne borom xam-xam loolu moo ko junj ne xam-xam ndekete du mën nga ko am niñ koy tuddee mën naa mën naa doon faneen am na benn réew boo xamante ne que jiite réew ma dana ñun suñu réew mi nit mhm. dara ku jàngul dara daal koy daa daa du xaat beneen defeen nit mhm. waaw te a mhm. ne kii de ndekete bayit suñ na si la merci rabbil alamin niki noonu ci lim nan awulal xuruj min dalali wasal nafu xalasel jëla wasal ihya lil xoloomi warabil amal bil maxloomi ni waxee ne xam-xam ñeenti bunt lañ ciy dundee lañ ciy duggee ñeenti bunt yi ñuy duggee ci ci xam-xam ñeenti bunt yooyu daa wax ne benn bi mooy nga yéenee dañ ci réer mhm. boo xoolee loolu la ñuy tuddee rek euh, maanaam nga man mën nga bokk kii daal mhm. ñaareel bi mooy li nga xam nag nga xamal ko nit ñi mhm. ñetteel bi nag mooy nga dundal xam-xam ak appliquer ko dundal gi danaa joxe benn misaal am na benn borom xam-xam bu siiw boo xam ne am na genn fànn xam-xam boo xam ne yàlla dogaloon na dafa dem ba nga xamante ne mënatut a avancé mënatuñ cee yokk dara daal te ñu am jafe-jafe nga xam ne day mel dañ ko naroon teg foofu du àgg daal di génne benn werd laa koy tuddee ndax xam-xam yi àdduna it am na wérd <laughs> mu génne yoon wérd wérd yooyu nag moo sofi xam-xam booba mm-hmm. te boo gisee bi ko sëñ bi waxee wax na ko ca Mbàkke wax ko ca Gànnaar mm-hmm. kon yu demee noonu daal moo bari ci mbind mi lool mm-hmm. xam naa ne waxtu yu jot nañu kon ñoo ngi jéggalu ñi nga xam ne ñi ngi seetaan ndax eh, comme ni mu ko waxee rek daa baax rek waaye xam na ne sore na maag borom xam-xam <laughs> sore na maag moom kon yàlla na yàlla may ñu ak dégg ak topp su ko defee diglu bi itam mooy yàlla na yàlla na doon njariñul ñëpp rek mm-hmm, mm-hmm. kon ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi yamale foofu kàddu yi di képp ku ko dégg rek ñoo ngi ñaan njamtu yi ci am rek rek ngeen jéggal ñu ko mm-hmm, <laughs> waaw di leen jox dig dégg ba beneen yoon incha allah di ngeen jëm euh, macha allah si Abdou Lakram Mbàkke lañ doon dalal tey ci émission Al Manbahoul Mouridi GMT TV di leen ci indil ñaar fan yu nekk ci weeru tubaab bu ne di ci ànd ak Lamfal TV ñuy daral borom xam-xam yu mag ci dëkk bi ak ci réew mi ngir ñu war a waxtaane ay tomb yu wuute yoo xam ne yitteel na jamono loolu mooy Badloukaayu Mouride di émission bu mag bii nga xam ne almandoxul Mouride yi la si ñëpp la karam tey doon waxtaane ci mbindi sëñ bi buñ nee mbindi sëñ bi nag xel day dem ci yenn mbind xëy na waaye moom lépp loo xam ne sëñ bi dund na ko tudd na ko wala bind na ko ca xalimaam gu seet la googu nga xam ne Euh, ci aras la daan jógee wala ci lawxul maxfuus boog la daan binde moom lañ doon jàngat tey mu leeral ñu sëñ bi ne dundam gépp ci mbind la am na ñoo xam ne fukki fan lañuy ñuy bind am na ñoo xam ne fukki at waaye sëñ bi ñàkk gi muy ñàkk jot ak nga xam ne ci loxoy ay nit la nekkoon yoo xam ne ñoo ñu suñ borom boolee loon ngir liggéey bi mën a sotti loolu lépp téewul da daan bind guddeeg bëccëg ñi mu daan bindal ñi nga xamante ne ay ndaw lañ ñi nga xamante ne ay mag lañ waaye ñi nga xamante ne mboolem àdduna bi lañ lu daan bind yaatal diine yeesal ko waaye rawatina fiq njëkki tawxiid njëkk teg ci ak tasawuf waaye lan ak tagg yonent bi ci moom ak sant ak ay ñaan nag kon yii moo nekkoon lay taayul waxtaan wi nga xam ne tey jii amoon nañ mbokk mbégte mu yaay da ci boroom borom xam-xam bu mag boo xam ne ci wàllu làkk ak wàllum e, yàquk làkk xam naa loolu am na ci xam-xam bu mag boo xam ne e, indi na ko ci bu ko mbokk yi toppee danañ ci jariñu bu baax du ñàkk ay jotaay yoo xam dana ko ci gën a leeral muy daaree kaamil numérique gi nga xam ne ku koy topp wala kum ci jàngal da nga gën a xam mbindi sëñ bi waaye da nga gën a xam xasida yi eh, Seexul Xadiim kon mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax di leen jox dig daje incha allah ci weer yi di ñëw yi santaat bu baax mbokk mi nga xam ne dalal nañ ko tey mooy Cheikh Abdou Karam di borom xam-xam bu mag ak waxtaan wi nga xam ne am na solo lool ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal Cheikh Amadou Muntaxa mu yàgg fi lool ci wér ci barkeb Cheikhul Xadiim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh